bisimil ilaahi ci barkeb say ci faddilu mi boru yàlla dool dinoo ay maqaama yàllaw bisimilah auzu billahi min asheytaani rajim bisimilahi muhammad nabil wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bisimilah inna walillah internet yi nga xamante ni yéen a taamu suivre seen jotaayu xam-xam bi ñoomat bëgg te tey dellusiwaat ci beneen numéro bëgg a waxtaanee waat lenn ci xam-xam rek rawatina ki nga xam ne moom lañ koy seqal saa su ne bu ñu toogee moom dañuy sawar ci bëgg a ak moom rawatina ci alxuraanul karim wala mbindum yàlla di Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan siyaar si waat ko tey bëgg a weccante waat ak moom ay kàddu sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat macha allah ci biir jotaay bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Hmm. baytaala ñu ngi lay fay nuyoo. di yeesal suñu siyaara bu baax ci yow di nuyu mboolem taalibe yi di nuyu mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre mm. fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ne aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima ci nuyoo bu solo boobu waaye santaat la beneen yoon tam ci wax dëgg yàlla euh, jot gi nga xamante ni wax dëgg yàlla yaa ngi ñu koy may ngir ñu weccoonte yow ay kàddu ngir jagleelaat ko askan wi te lépp itam jëm ci taxawu jaami yàlla yi da ciy santaat bu baax baax di ñaan sama borom gën a dëgëral taxawaay bi macha allah rabbi tey nag bokk na ci li ñu bëggoon a waxtaanee gannaaw biñ la nammee siyaare la bu pare dañuy maase ñun ñëpp di dégg benn baat ñu naan mooy kalimatul haq muy baatub laa ilaha illallah ñu bëggoon koo waxtaanee tey bëggoon nga wax ñu tey jii lu tax mboolem awliyaaw yi mboolem borom xam-xam yi mboolem ñëpp tënku ci baat boobu ne mooy baat bi nga xamante ni maanaam. mooy doole baat yi wala mooy ndey yi wala moo moo tënk lépp daal maanaam baatub laa ilaaha illallaah daal mën na ne moo tënk lépp daal fi ne bu ñu koy xool. Mm-hmm. Abaye Talla baat boobu ngay laaj. Mm-hmm. maanaam ku amul xam-xam mënu waxtaan. ku amul xam-xam mënu cee waxtaan. Mm-hmm. mooy baat bi nga xam ni lépp lu yàlla amul bàyyiwul dara ci loola. lépp a ko fi fekk te lépp a ko fi bàyyi lépp lu yàlla sàkkit mi ngi ci biir baat boobu mm-hmm. lépp loo gis génnul baat boobu mm-hmm. foo jëm fu mu mën a doon boo demee fekk fa baat bi mm-hmm. foo jóge fu mën a doon bàyyi nga fa baat bi parce que koo wékku ku mën a doon ci baat bi la wékku ci ku mu wékku ku mu doon ci baat bi la wékku ñi daq werante ci boroom xam-xam yi yàlla sàkk ñoom ñëpp a dëppoo ci baat bi amul werante mm-hmm. boroom xam-xam yi yàlla sàkk ñu ëpp luñ xam ci kaw suuf ñoom ñëpp a ci baat bi kenn mënu koo génn mm-hmm. baat boobu mooy njariñu nit nit buñ la doon laaj luy njariñam moom nit mm-hmm. min al kalimatul xaq te mooy baatub laa ilaha illa allah ngi ci biir baat bi àllaaxiraa ngi ci biir baat bi yonent yàlla yi yàlla yi yàlla yónni woon ñu ngi ci biir baat bi awliya yi jottali seenu mission ñu ngi ci biir baat bi nit ñi ñu koy jottali ñu ngi ci biir baat bi malaayika yi ñoom ñépp seen mission ngi ci biir baat bi génn ko baat boobu mooy baat bi gën a matale ci kaw suuf mhm. te nag indi nga ma baat bu ma sawar ndeysaan <laughs> baat boo xam ne man mii toog mhm. li may néew néewi at tërbiyewu naa ko juróom-ñaari at yoo xam ne nelaw ci guddi est saxal ko guddi gu nekk ma werd ko vingt quatre mille kon baat bu ma xam la mhm. baat la boo xamante ni si nii li ñuy wax ismulahil azam génnul baat bi téeméeri turu yàlla yi ngay seet mhm. benn boo ci jël mi ngi ci biir baat bi juróom-ñeent fukk yi ñuy wax ak juróom-ñeent yépp mhm. muy asmaul husna mi ngi ci benn baat muy laa ilaha illa allah bu ñu la doon laaj kot bi diine yàlla ji lan mooy kot bi benn baat dong mooy kot bi tijjil ñëpp jullit ak yéefar mooy baatub laa ilaha illallah baat la boo xam ni mënoo bari pexe mënoo bari pexe ba nit bëgg dugg ci lislaam nga jox ko benn baat mu jaar ci dugg ci budul baat bii shahadatu an laa ilaha illallah rek hmm. la doomu aadama mën a def dugg ci lislaam hmm. amul keneen nit ku am pexem dugal nit ci diine yàlla jii ñu validé ko amul ci wàlli yi amul ci yonent yi te jaarale woo ko ci baat boobu mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. amul it kenn kuy yor baat bi ci kaw suuf di ci xaar ndigalul kenn mm-hmm. yàlla digal na ko ñëpp déjà maanaam baat bi ndigal li jóge na ci suñ borom ba pare amatul kenn koo xam ni da ngaa dem ci garaatum nag maa toll ci digle bat bi bat bi ñëpp lañ ko bokk digal ki musta jaamu yàlla lu toll ni tarfatal ay ni buy jëm ci mbir suñu borom baat boobu la ko yàlla jox seedeel wali wu àgg ba sës ci suñu borom nga xam ni amatul fenn fu mu jum bu àggee fa mu àgg baat bi daw nga la fay fekk muy laa ilaha illa ci ngay commencé ca ngay yem dégg wax bi mm-hmm. maanaam dugg këti xalwa yi man ci kaw suuf nga xam ne luñ dugg xalwa loolu du échec mm-hmm. bat bi la ñuy duggee mooy laa ilaha illa allahu la boo xam ne nag ñi koy tudd ñoo gën ci kaw suuf si li gën a màgg ci kaw suuf ci li ñuy wax mooy batu laa ilaha illa allah wax bi mm-hmm. dama lay nag indil tarjumaan ji nii mhm. pour xamal la mhm. dayo baat bi waaye li ci biir di baatinu baat bi mhm. buñ duggee ci biir waxtaan wi dinaa la ko indil leeral la waaye dangaa laaj baat boo xam ni yéen ñi ko laaj man mi ngeen ko laaj man la gën a neex ndeysaan ndax damaa miin baat bi <laughs> def ci lu ne defar ci ku ne jaar ceeg fu ne ku ne làmbu nit yàlla yee yor ay tariixa lamb nit yàlla yi yor ismu laal ñoom ñëpp seen yamuwaay mooy fii laa ilaha illallah waaw manaam su ma neexoon mani la nitu yàlla koo gis ku mu mën a doon fii la yem tey terminal nga indi ñu wax pour ñu waxtaan maanaam kon terminal bi daal la nekk terminal mooy <laughs> moom kon moo waral ñu naan moo njëkk moo mujj waaw ndeysaan am na imaam Assane Cissé ca Kaolack mhm. ndeysaan kum jàngaloon alquran mu ne ko imaam ñaar yi nga xam ni mooy yi man ci àdduna ci laa ko xamee. nga ne ko ban ak ban mu ne ko benn bi mu ko mooy alquran. Mhm. alquran ci yow laa mhm. ci aju yëpp. ndeysaan imaam ni ko mbég naa mbégte moo xam ne mosuma ko bég. ko yàlla suñ borom it ci laa ko xamee. te <laughs> moomum ñëpp. wallaahi lazim imaam ni ko xam nga yàlla mu ne ko mu ne ko xamal ma ko mu ne ko yàlla daal. ci ñeenti xibla yi am hmm. foo dem fekk fa lenn lay doon hmm. moo njëkk moo mujj moo nëbb moo feeñ lu feeñ ci yow hmm. bu ci génn yàlla lu ci yow bu ci génn yàlla <laughs> li am laataa yow bu ci génn yàlla li nga fekkiwul it bu ci génn yàlla wallaay ndeysaan cee yàlla ngoog ñu am ni ko jazaakumullaahu xayran jazaakumullaahu baat la nag boo xam ni neexaayu baat bi moom amul lenn lu ñuy neexee ci kaw suuf mm, tubarkàlla waaye nag boo ci dee jaar di dem mhm. yéeguwaay yi niñ koy sikkaree noonu dinaa ko indi ci biir mhm. parce que dañ koy tudd di ko tegale benn bennal ñaar ñaaral ñett ñettal ñeent ñeental ba koy juróom ñaaral juróom ñaaral est benn bu nekk niñ koy woyee niñ koy sikkaree boo ko dee liggéey ko man jaar naa fa dinaa la ko leeral mhm. waaye dama naan neexaayu baat boobu amul lenn lu neexee noonu ci kaw suuf si. wallaay ndeysaan li ngay wax ni fi ne mi ngi neex neex goo xam ne fi mu toll jéggi na doy <laughs> man génn naa. si émission bi dina alaa daw me. ndax baat la boo xam ne boo ko dee si kar. Mhm. dinañ la ilham. Mhm. di nga dem bay dégg luy wax ak yow. est-ce que baat la boo xam ne kéemaan yi xew ci jamono. Mhm. moo koy joxe defi kéemaan. boo ko dee sikar di nga dem ba kéemaan goo bëgg def kiraama goo bëgg a def def ko ci nit ñi taggu aqiqa gi ngay am gu dëgg gi allahu akbar boo dee zikkar baatu laa ilaha illallah te saxal ko mm-hmm. yor ci lim bu wér bu wóor mm-hmm. di dem ba sa loxo bi bu la neexee nga tibb ci xal te du la lakk hmm. mm-hmm. yaa ngi dégg su la neexee nga soppi ci loo xam ne yaa ko soppi ci melowam amee woon ci ndimbalul yàlla su la neexee nga fal ci folli ci ci mhm. baat bi man nga cee fal ku mën a doon man nga cee folli ku mën a doon lu la waaye indi lu dul baatub laa ilaha illallah nag ak fu mu ko jëlee kam ko jële ku mu mën a doon dalay napp rek waaye boo riposté mu areer baatu que nitu yàlla ku mu mën a doon mhm. tur bu mu mën a doon mhm. bu ngeen roofaloo nga yor laa ilaha illallah te yoru ko dalay napp waaye su ngeen roofaloo mu areer bi ci topp nag mhm. mooy baat bi nga xam ne suñ boroom moo ko sikkarloo jullit ñi mhm. maanaam baat bi képp ku ko yor di ko jëfandikoo ndigalul yàlla nga yor mhm. te doomu aadama ci ñaari xaala dong la tënk leneen loo fi gis mën nañ ko waxtaanee xaala allaahu mooy yàlla mi la sàkk lim la wax digal la ko xaala rasulullahi mooy yonent bi mu yónni ci yow lim la wax digal la ko yenaan xaala yi yee ko bind kenn ku nekk ci gaayam nag foofu laa yem. <laughs> waaw ku nekk ak gaayam walaay ndeysaan. borom nekk ak borom. <laughs> tubaarkàlla. na borom def ba yeew leen fa moo xam. waaye mboolem ni yàlla yeew ak yonent bi ñu koy wax mboolem islam. ci ñaari baat yi lañ leen tënk te mooy ñu waxtaanee tey macha allah rabbi tabarkàlla jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima leer na nañ waaye eh, olof gi ci biir bi gars la fi man dégg naa la fi mu ne waaye xam naa ne ñu mel ni man dégg nañ la bu baax a baax tabarkàlla hmm. mais sëñ bi nag sànq la dégg sa biir wax nga wax ci lu doy waar mu bëggoon xam tey jii eh, lu ñëw ci sama xel la est-ce que tey jii ni ko jullit bi yore war ko war ko liggéey wala war même bu ci liggéeyu dara mu ndax li baat bi neexee rek hmm. nga dégg baat bi mu neex la tey ji ko gisoon dégg baat bi mu neex ko mu ko di ko est ko jural jëriñ waaw baatub laa ilaha illallah ñëpp lay jariñ ok waaye yéefar bi nag dañ ko wan bunt mhm. maanaam dañ ko woo ci lislaam ba waaw mhm. waaye amul kenn ku ko sañ tere kenn mhm. baat bi kenn sañu koo tere kenn borom bon ab yéefar muy si kar sañoo koo tere ndax walla zikrullahi akbar yaa ngi dégg ndax yàlla la nit munta tere kenn ndax kenn ku ne daam na ko nekkal ci yàlla bu dee da ni ko ab yéefar nga moo tax waroo tudd yàlla waa jaam bu yàlla gi mu doon noo koy def après ma li ñëw sama xel ba ma laaj lii dafa jaxasoo trop ci man de moo tax ma indi question bi nii yaa ngi dégg mhm. ñun daal daam fu ñu yàlla yemloo mhm. mooy ñun jullit ñi ñun la yàlla nii diine lislaam seen diine la mhm. ña ca bëgg a dugg nag nañuy def ba dugg caat bu ñëwee war a dugg it moomuñu ko ba ni leen du ngeen fi dugg mhm. dañ leen ubbil nee naa la baat bi la ñuy ubbilee doomu aadama mhm. bëgg a dugg ci diine yëfar nag bu commencé bay demee bay tudd yàlla moom léegi mu ñëw koo ne siiw mu ñëw nag nga seen ko mooy wàcc lu sa yoon ci moom. dëgg yàlla bàyyil mu yegsi rek. <laughs> tubarkalla jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan wax dëgg yàlla neewoon nga laaj na ni lu la tey nga nar a waxtaan yi tamit loolu moom mm-hmm. am na solo lool macha allah yal na yàlla euh, tey jii bu ñu koy xool ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yan nga ne la ñu indil moom ci kalimatul àq googu moom mi nga xam ne jël na baatu yàlla yi jël na xasatu arafu jël na jël na jël na mbooleem li suñu borom bindoon leen lu ci ne mu faram fàcce waat ku indi waat ci moom tey sëñ Tuubaa lan la. moom sëñ Tuubaa moom daf cee woote débat. débat la woote. waaw dafa woote ci baat bi débat. c'est c'est ku tedd ki. dani. Hmm. yéen taalibe yi. Hmm. jox naa leen baat boo xam ni. man mi leen ko jox man sëñ Tuubaa. Hmm. maa leen wax ni moo gën a mag ci lu ngeen di tudd ci seen làmmiñ. waaw ko yéen nag sama njaboot ngeen. ci sama xam-xam ngeen di sukkandiku. werantekat yi daq werante ci àdduna suñu ñëwee wax leen leen li ma wax ne leen sëñ tubaab moo ñu jox baatut laa ilaha illallah mhm. te moo ñu wax ni moo gën a màgg ci nit di tudd ci kaw suuf su boobaa nag mhm. buñ ca dugalee ay débat woo leen ci débat wuy leen leen mhm. bu leen dem bu leen arrêt de ne leen ñëw leen ñu débat ñu débat ci <laughs> ak a ñeme moo tax mu ne leen amma dawaamu sikrullahi fa huwa akbar min kulli ma kaana al murid yusiru wa kullu man sa'alani fali jawab xabla wala tujadilu waaw bu werantekat yi ñëwee nag ba war leen di werante yéen ci loolu ma wax mhm. ah yóbbu lañ leen wala tujadiloo ahlul kitaab mhm. su dee ñoom dañoo xam dara ci téereb yàlla bi mhm. wa aqimu salaata inna salaata tanha anil fahsaai wal munkar wala zikrullahi akbaru wax nag boo dee werante ci lu yàlla wax ak lu yàlla waxul ba yàlla waxal ko boppam moom mi moom jaam ñi. parce que moom bindam. débat bi mën naa tax loolu lay na débat ba moom moom <laughs> daawul bi débat ba pare close boo xam ni. nit mënu koo weesu. Mm-hmm. muy alquran. dafa nee na julleeg la ci ajoog la ngeen def la ci aju lépp. Mm-hmm. tudd yàlla ko gën a màgg ci yàlla. tudd yàlla baat bi gën a màgg ci baat yi ñuy tuddee yàlla. Mm-hmm. mooy baatu laa ilaha illallah. laa ilaaha illallaah Baay Taal dama cee fal mhm. folli ci mhm. dem ci réew def fa yu yéeme yoo xam ci baat bi dong laa koy def gisanteeg wëliw yi gën a màgg ci baat bi la ñu gën a wëliw yi gën a màgg ci parce que man ñi ma gisanteel ci monde bi awliya yi gën a mag mhm. ci sama jamono dama xam leen mën a jëflanteek ñoom bi ma demee ci ñoom la gën ca lañ ma jox te gën ca lañ yor mooy baat bi bi ci topp man bi may gëstu di sikkar dëgg-dëgg damaa nekkoon koo xam ne damaa xaw a sob tuuti mhm. ku ma dégg ñu ne xam nga dara ba moom damay ñëw laaj la <laughs> ndeysaan jëmm ju ñuy wax oustaz Aline Guèye mhm. mu dëkk Canaba mhm. awliya la woon nitu yàlla boo xam ne nit ñu mënaguñ koo xam gisaguma ku ko gën a ragal yàlla dégguma ko ci àdduna mm. ma yor samay turi tal sam bi ma njëkkee dajale ay turi yàlla ba yor téeméeri turi yàlla fukk ak ñeent ca moom laa teeri di ko wan turi yi turu ne ma wan ko ko turu ne ma wan ko ko turu ne ma wan ko ko ba agsi ci wenn tur woo xam ni dama ne ko ne tur yi nee nañ ma duñu ay turi yàlla waaye ay ay ay talsam lañ ak ay turi junne ma a ca doon laaj loo ma ci xalaatal wala loo ma ciy conseiller ndax sax ragal yàlla doy na ma mu ni ma tur yàlla ak weneen tur ci yam tur wuñ la mën a joxati ci adduna te xamoo lu muy firi bu ko si kat te xamoo lu muy firi waaw lii aw tur la tur nangam la mm-hmm. nga firi lu ko xamoo yow lu muy firi kenn xamul lu muy firi mun tur wuñ la joxit ñaar nit wute ci firi ga luy dëgg benn lay doon du doon mm-hmm. oh. <laughs> la jox mm-hmm. baytaal tur nangam la bu fi ne di guddal jënd bi yenul tur wi yóbbu ko ci jànkat yi neen lii lu muy firi bu ko kenn xamul baal ak yoon kat boo jaar la nga xam fu jëm. ba mu jël mu ne bu ko ñaar firee ñun firi ñu bokkuwul. bàyyi bàyyi <laughs> mag ñi kenn du ñoom. tur nag nee na ma tur wu dul tur yàlla wu wér alxuraan indi ko du ma ko digal nit du ma ko tere nit. Mm-hmm. nit nag moom comme jëmmi boppam yàlla dañu nit day juum. Mm-hmm. lam def man naa am juumte. waaw te man nag yàlla daa def dama jamono jii dama koo xam. damaa gisum médecin mhm. muy faj di faj ba ci yàgg xarub biir fàtt ci siso ma gis médecin muy faj ba ci yàgg opéré waaj a dee yaa ngi dégg lépp nag ñëpp lay dal mhm. nit yàlla yi des ñu tëgg jox la nga laal jaare fa dem sa yoon bu yàgg mhm. dégg nga wax bi moo tax man la xam-xam boo ko dee gëstu kuñ ne la xam na bu ko ci génne man sama tur yàlla yii may liggéey ibaar doog ak tijaan ak murit ak xaadir ak ñaseen ak laayeen ak fépp jaar naa ci ñoom jaarale fa bagage yi mm-hmm. bu ñuy wax maanaam la yoruma bagage yi mm-hmm. man bagage yi ma yor daa wóor leer nañ ndeysaan moom del Bachir <laughs> dégg nga xam ne ne laa ilaha illallah googu ñuy waxtaanee mm-hmm. liggéey naa ko ba liggéey ci jaaro jaaro baa ngi nii leer nañ nga xam ne jaaro bi ànd naag lim boo xam ne ma la liggéey lay jaaro bi dama lay liggéeyal la sarax bi génne la lim bi jox la ko nga koy werdal yow sa bopp nga xam ne yow da koy werd te man bala ma la koo jox daa am lim ci werd yoo xam ne mënoo koy werd liggéey ko génne sarax bi adapté wu ak jaaro bi joxaat la ci yow secret booy werd waaye nag gëm naa ni moom du ko jug laal ko daal waaye lii mel na noo xam ne yàlla dong nga xam ne mel ni baat bi toll fi ne ni la jaaro bi toll nu ñu ma ko jot a ñamal jox naa ko nit mu teg jaaro yam takkoon yépp indi ni ma sëñ bi man dama ba jaaru bii mhm. du lay la <laughs> kon moo jaaro yooyu jóge woon foofu ca ca réew ma secret bi mu ngi nii mhm. kon xam nga secret ma xam la mhm. waaye ngëneel yi daal ëpp na sax ay jaaro laa ilaaha illallaah defarug doomu aadama yi moo ci nekk ci ndigalul yàlla ci ndigalul yàlla su ma sañoon nag bu ñuy dem ca fin émission ba dinaa ci joxe ay lim yoo xam ni doomu aadama yëpp a koy sikkar te ku ko dégg sama gémmiñ am nga ci ndigal ak foo mën a nekk ci àdduna yaa ngi dégg mhm. baatub laa ilaaha illallaah faj naa ci nit koo xam ni feebar bi mu feebaroon dafa gëmoon ni da cay faatu mhm. baatub laa ilaaha illallaah ñaan naa ci aajo yàlla nangul ma aajo bi xamal na ma nangu na aajo bi ci aajo boo xam ni réew ma ko doon ñaane ñëpp lañ ko sant ñu esek baatub laa ilaaha illallaah duma naa ci fii ci parcelle sëriñ boo xam ne ndakaaru gépp moo leen tëwoon dégg nga wax bi yaa ngi ree xam naa nga xam sëñ bi non damaa dégg histoire ba yaa ngi dégg baatub laa ilaaha mm-hmm. nit daanu na ba tay ma yëkkati ko ci fii ci réew mii mm-hmm. nit amee na bor ba tay dugguloo ma xalwa ma dugg ci baat bi laata ma génn ñu woo ko fay ko hmm. ki ci mujj ngi fii ci almadi soriwul yoroon nañ ko bor borom douze millions wër na réew mi yëpp kenn mënu koo fay maa ngi moom ak tur wi maa ngi moom ak tur wi ba waa ji woo ko jox ko xaaj bi mënuma sëñ bi lu ma la jox man ko baal ba mottali xam kooku la mu yor wér na hmm. waaw waa ji fay na ko ba pare continuer bëgg a jëlaat lam ko la la la la jaare jaaroon ba bor ba am moom la ci xalaat ma ne ko ku jubari kenn du continuer liggéey moom bàyyi ko baat la boo xam ne daal bàyyi taala dafa leer nañ li ci nekkit dafa leer dañ ciy faj feebar dañ ciy ñaan soxla dañ ciy dugg xalwa dañ ciy dimbali ku nekk ci ak jaaxle dañ ciy dimbali kuy jaay te daanu ah parce que man bokk na ci li ma doon bëgg a laaj nii mooy gannaaw lim bi di nga ñu ci jox ay lim mais beneen bi ma bëgg a laaj mooy yan secret moo ci nekk dëgg dëgg dëgg ba yoo xam ne mën na dimbali euh, euh, doomu aadama bi ci ci ku ci ku nekk ci xat-xat ci ku nekk ci bëgg wërsëg wala ci ci ma mboolem doomu aadama daal ci ay bëgg-bëggam ndax xam na secret yu ci nekk yoo xam mën na ko mën a xam naa ne daal dem naa ci juróom-ñaari réew mhm. réew ma ci duggit fañ naa fa ko dof te ci mhm. wàllu laa ko faj da ngay fàtte suñu émission yu njëkk ya nee naa la ndaw sa dëkkoon Guinée équatoriale mhm. paralysé mhm. ba ma duggee xalwa lii dong laa yoroon mhm. boroom rab ya ca Bamako waaw Bamako googu tam am na génn góor goo xam ni man ci sama bopp bi ma njëkkee ñëw ko ba def fa ñetti fan yàlla dafa def ma génn doon doxantu jaar boulangerie muy ab sénégalais def na fa quarante ans da musta ñëw ci réew mi ñu ngi toog di waxtaan nii di waxtaan ci ay tur yàlla mu nekk ku baax ci ab mhm. bi mhm. ma dem tëdd gént ñu ne ma guddi góor gi wutal ko sarax ndax balaa ñeent fukki fan mu faatu won ma sarax bi dama ko dul wax di waxi tele ma ñëw ci moom wax ko ko góor gi ni ma man daanaka li nga gént ci man bis bu ne ñu gént ma gént ko mhm. yaa ngi dégg ñu génn sarax bi ma jóge Mali jëm Burkina matagul vingt et un ñu woo ma ne ma góor gi wujji na. ma wàññeeku dellu Mali ñu waajal ko indi ko Touba ma continuer dem Burkina li yàlla may na ma ko li yàlla dimbalee na ma ko ci sirru laa ilaaha illallah am na nitu yàlla koo xam ne maa moom ñoo amoon jafe-jafe yu bàtti moom ñoo seqoon combat. Mm-hmm. ñu wax combat maa ngi moom ko seqoon seq ko kenn mu ne ma. Mm-hmm. waajal di nga fi jóge eh, eh. <laughs> ba te yàlla mu ne ko man nag jëlewuma fi nit waaye dinaa wiiru ci yàlla ba xam mhm. ñu ni bërët ma tëdd gént ñu ni ma meñ ci sa kaw de waaye booy jëm ci moom muy faatoo est que yaa ngi dégg mhm. ba ma demee nag ba gis ni kii li muy dóor mu ngi agsi ay bala ma ngi ñëw ci man ma xam ne kii am na la mu xam ma ne xaaral man comme wéeru naa ci yàlla kay ma fëgg rek mu dégg ma baat bii laa laal matul ñeenti fan mënatu la dox doomam la yónni fii jéggalu ma te ci réew mi naa la wax turam la mhm. diw sàngam la mhm. dafa am yoo xam ni yàllaa ko dimbalee nit ñi dañ ko war a jël nag dimbali dimbali ci seen bopp ñoom mhm. yaa ngi dégg baat la boo xam ne nag lépp kenn mënu ko waxtaanee waaye mën nañ koo junj nit ñi ñu xam ko baax na ba jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu rawatina baat bi nga xamante ni muy kalimatul haq di baatub laa ilaha illallah muhammad rasulillah wax dëgg yàlla nee nga baat bu la neex sawar ci lool macha allah rabbi gannaaw di nga ñu jox lim yi moom kon nanu nanu nanu bàyyi ndax lim yi man laa yàkkamte woon ndax xam naa ne tey jii moom ci guddi àjjuma ji ci laa nar a fas yéene fanaan nitu yàlla yi nga xam ci réew mi mm-hmm. koo ci gis mu am mbooloo mu dul si kar bëggoon naa la ci laaj sax fi ne la man fi ne diggante baat bi ak maam Cheikh Ibrahima Fall mi ñu ko lëkkaleel diggante baat bi tey ji ak ñaseen yi laa ilaaha illallaah mooy yaa ngi ma li may laaj nii rek maam Cheikh Ibrahima Fall suñ tubaa ko jox baat bi mhm. yorul lu ñuy donn képp koo dégg mu donn ci Cheikh Ibra lu dul si kar xamul Cheikh <laughs> tudd yàlla dong wala am tudd yàlla dong wala am mhm. njaboot goo gisit duñ tudd yàlla duñ njabootu Cheikh ak a wér Cheikh nee naa la fa ñëpp jëm fa la dem toog moom commencé fa. di leen xaar ñoom. fa ñëpp it commencé fa lañ ko fekk ndax fa la yem nee naa la baat bii mu yor muy laa ilaha illallah booy commencé ci ngay commencé lislaam booy dugg ci kalimatul xaq ngay dugg mooy seede ni amul benn buur bu yàlla. te mooy mm. ashadu an laa ilaha illallahu moom la Cheikh Ibra yor. Mm-hmm. booy góorgóorlu góorgóorlu nabi ba dem ba sës di jëfee diini ji yëpp. suñ borom na wala zikrullahi akbaru boole ci tudd yàlla mhm. kon fi nga commencé fa nga yem mhm. seero nag fa ñëpp commencé fa la commencé fa ñëpp jëm fa la yem amul leneen loo jël ci Cheikh Ibra mhm. bàyyi ñes dama mit na bàyyi bala ngaa xam ni kii teel bàyyi la da koy gis mu yori kurus di tudd yàlla laayeen dem fa lu ñor laa ilaha illallah rek demal Canaba laa ilaha illallah rek laa ilaha illallah rek demal ci Cheikh Abdou Khadre Jeylaani mi nga xam ni moota xarnu bi lu mu yor hmm. hmm? baat bee fi ne hmm. bu dee nag yow ña nga wóolu ñoom moom lañ yor yow mi leen wóolu la ko te yor xanaa waye bi lu mu yor yonent bi luy mission lu ko fi indi mooy woo jaam ñi ñu wuy ci yàlla ci jëfe ay ndigalam yàlla nag bala ngaa jëfe lennam da ngay témoin ci kanamam ni ko amul benn buur bu ñu war a jaam budul yow pare nag door jublu ci yàlla te mooy allahu samadu baat bi ngay waxtaanee daal mooy baat bi nekk ci àdduna man nag damay soññ nit ñi. Mhm. ñu jëm ci sikar. Mhm. ndax jamonoy tudd yàlla lañ toll. Mhm. waaw képp koo xam ne nag yaa ngi sikar rëcc nga. ku ci duggagul fa nga jëm ba boo nga teel koo xam. lislaam dafa am ay yoon am ay tegtal. jaamu yàlla ci waxtu wi ñu la ko digalee jëf ca ba ngay man jëf ji nga xam ne da koo bëgg a jëf jël ko. jariñoo ko. mën mhm. gisuma ci lu ci gën tudd yàlla. ñu dem. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu wax nga ko léegi këru dina boo ci mën a dugg foo mën a bokk foo waay mën a bokk foo dugg daal baat ba nga fay fekk moom la ñuy moom moom ca lañ tënk seen lépp muy kalimatul haq gi di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah am na solo jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bi ma bàyyi xam naa ne kon ca jeexital ba incha allah di nga ñu indil li nga xam ne mooy lim yi ci nekk te mën a taxawu doomu aadama bi ci soxla bu mu mën a am ak soxla bu itteew ju mu mën a nekk rek ci kaw suuf bokk na ci beneen baat ci ni nga ko waxee léegi ni mooy tuubal suñu borom. cheikh bi gaa yi dañuy wax tuubal leen yàlla tuubal leen yàlla waaye ba léegi kenn waxuñu naka la ñuy tuubalee yàlla. ñenn ñi ñi ko fi wax ak néew baatub astaghfirullah moom la ñu jël ne mooy baat bi ñu war a tuubalee suñu borom ma bëggoon nga wax ñu ban baat la ñuy tuubalee suñu borom ak naka la tuubalee suñu borom. baatub astaghfirullah baat la boo xam ne tamit tamit nit ñi dañ koo jëlee ci ndigalul yàlla. maanaam mhm. fi ne kenn ndigalu ko nit ñi ku dul yàlla. Mhm. maanaam ndigalul yàlla yi ñuy sàgganee bëgg jël ndigalul nit ñi moom dañ koy teg ci. favoriser ko <laughs> dëgg-dëgg daa jot nga wax ngeen war a wax de. yaa dégg. Mhm. baat la boo xam ni ku ko yor yàlla la ko jox. ndax yàllaa ko digal ak njabootam mu jullit ñi. ay jaamam. yàlla mooy leen tuub leen yonent bi ne saytaane. man na nit ñi ci juróom jël na seen juróom wecceeku ko ay juróomam jox leen hmm. jël na àdduna bëggloo ko jaami yàlla yépp jël alaaxira fàttaloo leen ko jël na alal jox jaami yàlla yépp waaye jël xisaab fàtte ko fàttaloo leen ko hmm. atte ga yàlla atte alal ja yaa ngi dégg hmm. jël na kër ak taaru kër rafetal ko ci ñoom lool jël seen kër dëgg muy biir bàmmeel fàttaloo leen ko mhm. yaa dégg mhm. yonent bi nag nee na la ko ci gën a jaaxal mooy jël na ak mooy yàlla yaatal ko ci seen biir lool waaye nag jël tuub fàttaloo leen dégg nga wax be mhm. loolu liggéeyub seytaan la ci nit ñi baatu istixfaar nag li tax mu neex xam nga dafa neex day baat bu neex lool li tax mu neex mooy dafa am yoo xam ni boo ko soxlaa ndekete yoo mënoo koo jële fudul ci nii dangaa dem ca baat ba mhm. yaa ngi dégg mag ñu njëkk ñëpp bañ koy firi dañuy wax ni ah istighfar mooy baat bi nga xam ne dañ nga ci day fóot ay bakkaar da koy raxas da koy dindi mhm. mooy cuub gi nga xam day fekk lu ñuul kukk mu cuub ko ba mu weex tal ñi leerale nañ ko noonu ci olof ndax ay émission olof la ñuy def yaa ngi dégg am ñu ni mën nañ leen ko firi ni boo ñëwoon ba ci buntu kër bëgg a dugg ab sonnerie la bu ne ci buntu kër bi moom ngay sonné maanaam firi boo doon seeti yàlla naaw ba ci kaw asamaan si boo demee fa ngay fëgg naan koŋ koŋ koŋ koŋ mhm. buñ na naan entrée koŋ koŋ yooyu nga doon def istixfaar lay doon ba ñu leen duggal ba nga dugg ci biir kër gi la nga doon wut si da ko fay fekk mhm. yàlla dafa assuré ci baat bi ni képp koo xam ne yaa ngi tuubal yàlla dinaa la li man yàlla ci sama sama bopp man yàlla mm-hmm. dinaa la dimbali jéggala say bàkkaar ba pare ñetti yëf yi doomu aadama yi gën a bëgg ci àdduna te mënuñu koo amee fu dul ci yàlla ma jox la yëpp dinaa la jox alal ñu mm-hmm. ne alal daanaka wax naa la ne nit ñi moom mm-hmm. fàtt nañ yàlla ndax alal yàlla na ne yow booy tuub ma jox la alal ji kon léegi da ngay nekk ci yàlla pare am alal la ilaha yàlla ne dinaa la may doom hmm. kenn koo xamante ni si ni dina fi bàyyi lu koy wutul lu doom amul yàlla may la doom ndax doom yow xamoo dayo bi te kenn mënu ko defal kenn ku dul yàlla yàlla jox la ko hmm. waaye yàlla nee na nag ma ubbi la xéewale asamaan mooy nga am loo dundee hmm. sab dépasse du manqué ndax yàlla da la ubbil xéewale asamaan waaye yàlla nag nee na ma ma signal la waale encore ci sa dossier yow ni àjjana da koy dugg eh, waay ba ba war lay tuub da dem ba léegi am signature suñ borom bu valable ni yow àjjana da koy dugg xam ne moom dee de kala tee dem àjjana waaw dee <laughs> koo amaat problème ba yow lu jënd ko fii ndax boo demee suñ borom du <laughs> moom say <laughs> yàlla ci yàlla istighfar ak laa ilaha illallah maa ngi ñëw ci lim mm-hmm. jullit wata tëdd guddi te benn bu nekk liggéey ci junni ndeysaan bu ëppee nag moom ëpp baax na ndax lu baax yées moom la ñuy jàmbat waaye ëpp na moom amut solo mm-hmm. fu ne nii koy may xaalis mm-hmm. war ko may fukki junni jox ko cent mille ah day sant yàlla mm, wax yàlla waaw mooy mooy mooy mooy lim yi nag bu ëppee moo gën mu manque yées waaye junnib istixfaar képp koo xam ne saxal nga ko ak junnib laa ilaha illallah réew moo mën a nekk di fa móodu móodu doo ñàkk réew moo mën a nekk di fa jaay li ngay jaay dina jar yow saxalal rek mhm. saxal nag pour nga am départ ci li ngay saxal mooy juróom-ñaari fan bis bi nga commencé nga commencé koo liggéey ba bis bi nga delsi ñaar fukki fan ak benn ci lañ lay ci lañ lay identifier xam ne yow yaa ngi def lii ñeent fukki fan ak benn nag ci lañ lay mbaayaama ba mu boo day dox junni mooy mil. junni mooy mil ci wolof. Mhm. saxal ko fi mu ne muudu muudu yu bari su la neexoon ñu bàyyi jàmbat ndax jàmbat fi mu ne suñ borom mën na cee jéppi nit. Mhm. dégg naa xise bu ci sëñ Tuubaa kay. yaa ngi dégg. Mhm. bul jàmbatati. allayhi bul woo sa benn mbokk naan ko fii dox naag doxul koo xam ne mënoo koo woo moom ba mu dox ba fekk la Europe koo ko ci yëgal mu dox ak doxul te nga ko yëgal yàlla mi la fi indi. lay ndeysaan <laughs> des fois dañ oh. may woo fii. Mhm. naan ma sëñ bi da ngay ñaan wala da waaraat ndax da ngay <laughs> woo wax la xamante nii doo coupé di nga waat. ala ku dellu. Hmm? Mhm. ndax ñaan nag am na waaye doomu aadama bi tam. Mhm. des fois réer a koy tax a ñaanlu. soo da nga koy gindi ba pare ñaanal. ndeysaan. li nga wax bi. moo tax daanaka boo may wax waxee waya waya man du mu am jot googu dama lay xamal ne sëñ bi defaraat sa toogaay nekk ci caaxaan doo nga la téye. ab jullit day gëm yàlla d'abord. am mhm. tawxiid bu wér. Mhm. su pare nag jaamu yàlla soxla ñëpp a ko am te suñu borom dong ngay faj soxla waaye foo jëmee ci nitu yàlla yàlla dimbali la. xam nga mooy gàcceeg sëriñ. Mhm. ñaan lu nanguwul. Ah, raw na romb na sax nag fi mu boo ñaanee lu nanguwul ci ab sëriñ. am nga gàcce. moo tax ab sëriñ sama ñaan nga nangu na moo ko gënal milliard mhm. ñaan gi may ñaanal sëriñ bi nangu na gis naa ko résultat yaa ngi nii mhm. moo gënal sëriñ bu jub milliard ndax ab sëriñ bu dëggal laata moo toog di xaar gaa yi ñëw la ko yàlla dimbali ba pare mhm. ab sëriñ da ngay toog ci lu leer man di mus di musalaate ba pare nag woo gaa yi ñëw mooy toogaale gi rek waaw waaye yoroo ñaari dërëm bëgg a faj soxlay gaa yi du sotti. du sotti. te <laughs> soxlay bopp nga koy fajee de. lay lay. waaw dañuy ñëw nag bëgg moom alaadal bi ndax waxtaan la rek. lay de waxtaan nag moom. Mm-hmm. bëgg teg li xew nga xam ni da ngay wax loo xamul. Mm-hmm. li ñuy waxtaanee day dëgg. Mm-hmm. ñu bëgg nit ñuy topp jariñu ci. ndax man it nit ñi ñu ngi may woo fu ne. li ma sën bi bari lal émission yi ndax ñu ñu ngi ciy jàngee. waaye lii may jàngal daal dama bëgg nit ñi jëfee ko ndax gisuma ko mën a weddi. mooy nañ topp yàlla mhm. te doyloo ko mhm. suñuy soxla ñu jëmee ko ci suñ borom ndax lool suñu borom a ñu ko wax mhm. yàlla moo ne yonent bi neel nit ñi seeni soxla nañ ko indi ci man ndax maa ko mën a faj baatub assamadu jël ko nga dem firiloo ko ku la mën a neex allahu samad mooy nit ñi nañ ma jublu man yàlla jublu googu nag li tax suñu borom di wax mooy ñu jël suñuy soxla ak suñu yaakaar jëmi ko ci yàlla keneen koo yaakaar kudul yàlla bu la mënee dimbali yàlla yaakaar allah kulli leen. li ñu yaakaaree yàlla nag duñ ko ko jox benn yoon. directement moo gën a gaaw de. jàdd jàddal bi lu ko lu ko jàpp ci yoon bi. yàgg rek yàgg ci yoon wi. wiiri wiiri gi lu ko fi jar. yàgg ci yoon wi rek. yi naa wax ne wiiri wiiri. bu njëkkee ndaari lu ñu wiiri. lay wax dëgg. Hmm? lay wax dëgg jaay. réew mi nag bataa la. Mhm. yow journaliste nga. Mhm. loo fi laaj di ko laajaat. Mhm. ca bisub layoo ba. kon yi ngay def it ñun rafetlu nañ ko mooy xool lii dëgg ñu waxtaanee ko ndax dëkk bi fa la toll. waaye daal naa la xamal ne lenn jiite fi am. ki jiite asamaan ak suuf. moom bindee fi jiite leen muy yàlla. buñ jëmalewul nit ñi ci ñoom ci moom. fuñ jëmale nit ñi dañ wàññeeku ànd ak àndaat ñoom jëm ci moom. kon nañ wëlbatiku balaa balaa yàgg. suñu borom nag waxoon nañu ci alxuraan ni ñu. bu àdduna tolloo fii mu toll dinaa fi indi feebar yu ngeen mun tafaj ñu ne ah waay bu tolloo fan yàlla ne bu tolloo ci moy gi ngeen ni mooy ñëpp xam ko oh su boromay wax du samay wax mm-hmm. yàlla nee na bu ngeen yanoo àdduna di langar-langar ak moom ne fa di mooy yàlla ba yéen mooy yàlla gi ngeen ni mooy yàlla seen doom yi ndaw yi sax xam ne yéen a ngi mooy yàlla ñëpp xam ko mm-hmm. yàlla dinaa leen yónnee feebar yi ngeen mën taxaj moo tax maam Abdou bañ ko laa bañ nee ko am na feer bu xew bu tudd Sida. Mhm. mu ne luy Sida ñu leeral ko ba ne ko ci muy yàlla jóge daa xam. ndeysaan. laaja daa ñëw ci bopp rek mu xam. ndeysaan. wax Malick. waaye ni yàlla na yàlla tinu àdduna waay. ndax xamoon na ni ñun fii lañ jëm. coronavirus nag. li war a ñëw mën naa ni corona doomam rek la de. dégguma la de. <laughs> ma ni ko dégguma la de. dama ne li war a ñëw ci àdduna. ci feebar yi. waxuma lay feebar ak yooyu <laughs> ci nattu yàlla nara a nattu nit ñi bu ñu rikkiléwul hmm. li nar a ñëw korona doomam rek la ci. dee saful yàlla de. déedéet. daanaka effacé woon na adduna bindaat ko woon tollu fii. Hmm. dama nga jàngi xistab lóot. lóot. Hmm. yàlla. nitu yonent yàlla nuux ya. ba mu leen di raafal. fi la fekk yonent yi téere yëpp indi nañ ko bind ko mhm. yaa dégg ñun nag dañoo jàpp ni àgg nañ ci doole ñun doomu aadama yi foo xam ni mën nañoo te def yàlla li muy def jéeguñ foofu sax alxuraan bi muy wax kàttan dane wa annal quwwata lillahi jamian waaye yéen a réer waay xanaa xamu leen ni kàttan nag ci loxol yàlla mhm. waaye yàlla nee na yéen da ngeen a gàtt xel waaye bu ngeen gëstu woon rek gis li ngeen di xool benn bakkan bu mënal moroomu bakkanam dara ci seen biir amul amul poos lu nit def mu entre ndimbal yàlla da ca nekk mhm. yàlla moomu ñuy dimbali nag suñ demee ba ni ko bàyyil ñu dimbali suñ bopp booba alku xamatuñ fuñ jëm mhm. hmm? fi mu ne ñun niñ taaralee àdduna ñi nii moo ñu tax a bew te àdduna fi ñu ko teg moomuñu ko mhm. suuf si fi lañ ko fekk ak asamaan si di war a dem ba ko fi noonu non dama ne mhm. suuf mhm. ak asamaan nga xam ne mooy première matière yi ñun mën a guñ ko defar de <laughs> da nga mos a gis américain yi defar suuf defar ko mu ne sëñ ko defar moom xalaatuñ ko moom waaw léegi <laughs> ñun bu dee ñun ñaari ñaari première matière yi rek ñun ñun amaguñ ci xalaat bëtinoo yu ndaw yi ñu fi teg nga xam ni ngelaw li bu ñëwee wala ndox mi ëf ko war nañoo mën a jay ba ñu àgg fii ñu àgg ci mbon erreur weesuwul ko wala ñu àgg fa ci réer ku erreur weesuwul loolu dax génn guñ àdduna bëgg a wax ni mel ñi def naan daa ron ak daa liig ne ci tappale yoo xam ne amul bopp amul genn hmm? nañ def yàlla suñu boroom muy suñu borom hmm. Hmm? ñun nag ci suñ biir li ñu war kenn ku nekk la ko war ca moromam mu def ko waaye yàlla moom buñ ko jël mukk di ko wutal benn palaas ci suñu biir bu dul doon ay jaamam mhm. jublu ci lim ñu digal te moytu lim ñu tere ay jullit lañ nañu wut ay référence ci lislaam ji mhm. lu dul loolu nag ku la ko digal mi ngi lay nax lu dul loolu ku la ko digal sànq na la mhm. ñi gën a baax ci nit ñi ñooy ña gën a ragal yàlla luñ la jiitalal nag lu dul kàddug yàlla loolu alxuraan weddi na ko yàlla nee na waxi yéefar yeeg seen jëf yi ci suuf la jëm kaddu yàlla nit yàlla yi ci kaw rek lañ jëm. allah kulli yàlla. Hmm? allah kulli waaw adduna nag nit bu fi nekkee jaaxle. wala mu gis lu mu xamul na jëm ci boromam miy dindi njàqare. Hmm. wala mu jublu ci yàlla mi ko xam. Hmm. yàlla dimbali ko leeral ko. foofu tamit laa lay indil ci istixaar xam naa xaw naa xalaba waaw mënta ñàkk ndax tur yi dama koo miin te ma <laughs> xanaa rek benn biñ ci dëre li li sabab lii tey ji mooy teew bokk na ci li tax ñu indi lii dañu gis barki démb ku ci mel ni sëñ Muntaxa Mbàkke na fi yàgg loolu te wér indi indi indi indi indi bisub xasaay ne nañ jàng alxuraan jàngi xasaay ñu pare mu am bayit bu mu jukki ci biir xasit di sëñ Tuubaa ne gën kaa néew na ko doomu aadama bu ne di jàng ñetti yoon ci suba gi ñetti yoon ci ngoon gi noo ko ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis nga sa ak nga ci am. waaw mooy képp kuy jullit da ngaa war a jëfe li mu wax. Mhm. te ba mu wootee képp kuy ab jullit a wuy ji. Mhm. waxuma murit waxuma la képp kuy ab jullit te ci réew mi. Mhm. da ngaa waroon a wuy ji. yi lislaam moo dul fawukaay wala lu ñuy farparloo. nit ñi jamono bu ne yàlla dina leen tànnal njiit. njiit loolee nag la ñuy déglu ñëw leen ñu woo leen ci ci loo xam ni ñëpp xam lim doon mhm. ñëw leen jàng xasida ñëw leen jàng alquran mhm. ñëw leen ñu ñaan mhm. tuubal suñu borom delloo ko suñu bopp te doyloo ko ñaan ko ci ñaar yi ñu jublu muy nawet bii nga xam ni ci lañ am yaakaar ci ni li ñu yàlla di dimbalee ñu dundee ko ci lay jóge ak mbas mii ne ci adduna bi te lenn mënu ko fee jële lu ñaan ñëw leen ñu def lu fi jële loolu mhm. waaye saa yi ku wujjuwul da ngaa ñàkk jom waa <laughs> dëgg ak ngoog de lay la si waaw boo wujju loolu looy wujji xaw ma ko de ñëw leen ñu marché wala ñëw leen ñu jaar fii ñaxtu wala ñëw leen ñu kaas wala ñu ne ñaan sàcc dara rawale kon nax ñi jëlee léegi laa loolu gars di def fii. Mhm. yooyu lañ war a baax te jublu ci diine ji bàyyi taala. suñ mun taxaa daal. Mhm. sant ko ak gërëm ko ak ñaanal ko li ko ñëpp di ñaanal muy gudd fan dong laa koy defal ci loolu te itam xamal murid ni leen mm-hmm. nit su amee lu kenn amul na ko téye ni ko kenn téyewu jazakumullahu xayran bay taala xanaa bi ci mujj bi ñuy jeexale mooy lim yi nga ñuy may ci ci ci li nga xamante ni mooy kalimatul xaq gi ñu ñu ñu jeexale ko lim yi daal góor ak jigéen mag ak ndaw mm-hmm. jamono toll na foo xam ni tudd yàlla jot na mhm. am na woykat bu ko doon wax naan waxtoo jot na waaye fi ne jamono jii dañoo toll ci jamonoy dellu ci suñu borom mhm. ñu njëkk dellu nag ñoo mucc nañ yàlla na yàlla dimbali nit ñi ba bu ñu yeex a dellu te li ma leen di digal ñu xam ne yàlla dong nga tax ñu jëfe ko mhm. mooy kenn ku ci man saxalal junnib laa ilaha illallah jot na waxtoom jot na ak junnib istighfar bala nga tëdd ñam xool te da ko àpp looloo ma ci jaaxal fi mu ne ñaar fukki fan ak benn ñeent fukki fan ak benn moom mu continué juróom-ñaari fan kay laa commencé waaw <laughs> juróom-ñaari fan yi ci lañ lay identifier xam ne yaa ngi koy def mhm. ñaar fukki fan ak benn yi ci lañ lay boole ci ñi koy def nga xam ne mhm. bokk nga ñeent fukki fan ak benn yi man ne ci ngay ci lañ lay pro dugal ci biir programme bi nga xam ne moom day dex nga xam day dem malaayka yi dañuy reconnaître xam yaay kan xam sa lépp kenn umpul yàlla sax waaye daa am fu ñu lay dugal fu ñu lay xam fu bees mhm. boole la ci ñi xëy di mus. te mhm. duñ jaaxle. Mhm. seen naqar dëddu leen ci jàmm ak salaam. wallaahi ndeysaan. bii ñu génn la ci doo faax. jar naa <laughs> corona bi kuñ ci génnee fi jar naa daw ba dee si tën. na gaa yi jël. <laughs> kaddu gu mujj gi say Cheikh Ibrahima Ndiaye sant rek ak gërëm. ndeysaan. ak sentir mbégte ci émission bi di ñaan yàlla mhm. ñi ko déggit te bég ci te seen xol sedd ci yàlla na ko yàlla def muy li continuer ci ñoom jaare fa fanqal leen seen ay jafe-jafe dolli leen kaaraange sàmm leen sàmm seen njaboot fu doom aadama ma nekk ci kaw suuf yàlla na yàlla defal dégg ak topp allahumma amin jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci waxtaan wu am solo bi waaye ci leeral yi waaye ci firnde yi itam yi nga xam ne yaa ngi koy indiwaat macha allah wala bi ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax donte émission bi xam naa ne ni mu neexee ci yow xëy na a mënuñoo yëg dalil ga waaye ñu ne yëg-yëg boobu lañ am neex na ci suñu xol yi lool te xam naa ñi koy teewlu itam dana neex ci seen xol yi lool te dinañ ci jëlee tamit njëriñ kon duñ def rek lu dul sant la gërëm la bu baax a baax ñaanal la suñu borom dool laa taxaw doole guddal fan wi a wéral cër yi ba jotaay yu mel ni ñu koy gën di am ndax mooy li may faral di wax saa su neena li li li neex ci jotaay ak yow mooy saa su ne yaa ngi delloo doomu aadama bi ci wàccuwaayam muy mu delluwaat xam ki mu doon xam ki ko fi indi xam lu tax mu indi ko fi muy xam suñu borom topp suñu borom te mal ko te xam ne mooy dimbali jàmm te tey ji boo xoolee jotaay bi ci ñaar yi ñu ko tënk yëpp ci loolu la ñu delloowaat kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan sama borom doolu laa taxaw bu baax a baax a baax a baax ba jotaay daal gën di am njàngale mi gën ci am ba julli ji te am yàlla yi tamit mën cee jëriñu ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye santitam bu baax a baax mbokk internet yi nga xamante ni ñoom it saa su ne ñu ngi ñuy topp ñu ngi topp jotaay bi ñii say soppe say am di jàmm say xarit say taalibe ñëpp kenn ku ci nekk lay bëgg-bëggam ak yéneem ak bëmbétam suñu borom bi dul jeexal dara yal na yàlla jàpp ndala leen lépp waaye itam sant bu baax a baax a baax a baax a baax suñu cadreur suñu monteur yeeg ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba lépp daal di yemb ñoom it kenn ku ne ñu ngi lay sant waaye daal di cëpp sol ne mooy junni laa ilaha illallah junni ixtifaar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 bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur ay maqaam yàllaw